du ñu yore réew yooyu ba jóge fa sax ñu naan leen foog ñu dellu si benn populaire. ci biir loolu ñun association parents d'élèves yi dañu booloo ak waa Assane ñu ne nañu toog waxtaan d'abord ñuy doxale bi ñuy waxtaanee ñu ne nañu rencontrer l'administration de l'école benn comité de gestion moo fa nekk en ce moment bi ñu toogee waxtaan ak ñoom j'avoue que metti woon na lool ci biir association parents d'élèves bi parce que xam nga association parents d'élèves c'est le Sénégal en miniature. ci mhm. am ñoo xam dañuy mhm. tàng. Mhm. ku ne ak sa gis-gis. ñu war a arrondir angle ci biir loolu fexe naa ba nga xam ne adopté nañu une solution médiane maanaam war a gisee administration école bi ne leen te ñu ko xaaj ci digg bi. maanaam couper la poire en deux. te bu ñu defee loolu maanaam mooy cinquante pour cent parents yi cinquante pour cent école bi. administration bi te bu ñu defee loolu mu nekk après inscription yi ñu defal ñu ko moratoire ndax ku xam parent d'élève li ñuy dund man sama téléphone du arrêté je vous assure pour ma nelaw nelaw yu de gëj naa am cinq heures de sommeil ci bés gëj naa ko am ñi ma xam dëgg xam ne damaa jeex lool fi ma nekk nii lu ko waral engagement éducation du caaxaan ñun yàlla moo ñu nattu ñu nekk ay militants de l'éducation dañ ciy yëngu ci lu même bu dul association parents d'élèves xale yi nga xam ni dañu bëgg a jàng ci quartier bi nga xam ni ñii brillant nañu waaye dañuy nekk ñoo xam ne ñi conditions yooyu nekkee mun leen permettre ñu sori dañu gis yu bëri yooyu yëpp dañu ciy jàpp nattu la mais natt bu neex hmm. ndax jaamu suñu borom ci la bokk bi ñu waxtaanee nag ak le comité de gestion ñu xamal lu ñuy bu payé les trois mois ñu proposé leen loolu ma wax sànq ñu ne non vous payez les trois mois ñu wax argumenté wax wax ñu ne non c'est les trois mois man ni leen man de lii mosuma gis ci am négociation mouvement élève mouvement étudiant mouvement syndical mouvement politique mouvement sportif nga ni c'est tout ou rien doo wàññ doo yokk mosuma gis ci am donc ba ñu leen mais non. dañu nañu waxtaan dañ ko gérer dañ ko gérer hmm. waaye bu ñu demee ba dëgër nag ñu ne leen léegi kat nañ ko yemale foofu comme point boobu mu ngi d' accord mensualité benn réunion loon euh, une quinzaine après suñu assemblée générale ñu ne leen réunion bi nañ ko yemale fii ordre du jour bi kenn du koy pise lii moo moo am solo les trois mois bi ñu defee loolu ne leen dañuy rendre compte suñu base maanaam convoqué assemblée générale extraordinaire boo mhm. parents yi pour prendre une décision mais bi parents yi ñëwee dañu ñu ni sax cinquante pour cent duñu ko joxe du ñu joxe dara. ndax jànguñu ko. Mm. étant entendu que xale yi nga xam ne dañu nekkoon ci classe d' examen CM2. Mm-hmm. troisième collège. parents yi dañu fay c' normal le service a été effectué. Mm-hmm. dafa jaadu. Mm-hmm. mais dañu bëgg lépp loo xam ñu ngi koy dégaale mu nekk de l' argent licite. te parents yi bu leen teg lu ñu àttanul. bëri na ay parents yoo xam dañu may woo ah man de président man de dama doon commerce. Mm. damaa leb banque ba bëgg sama put. six mois ngi nii mënumaa génn réew mi mhm. sama ñaari doom a ngi ci école bi mhm. naa dañoo bëgg ma sàcc mhm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu daw yaram ñu bëri liggéeyatuñu y a des professions libérales dañuy ñëw wax la seen bopp mais dafa daw yaram ngir mu daw yaram donc tey jii nii looloo tax nag ñu ne ministre de l' éducation foog mu wax ci dégg naa keroog Pape Djibril Fall bu muy interviewé le directeur de la communication et de la formation du ministère de l' éducation. Diagne Mohamed mm, Diagne monsieur Diagne mm, gis naa ngeen ni ko ndax parents d'élèves mën nañu nekk juge et partie est ce que parents d'élèves yi mën nañu nekk juge et parti maanaam yéen yéen a war a jouer rôle facilitateur ñun bañuñu ko parce que association parents d'élèves du leen du organe d' assistance partenaire la ñu ak administration école bi di poussé. Mm. surtout association parents d'élèves buy def ni ñun. dañuy présenter rapport fu ñu toll document bi rapport président moo ci nekk rapport moral rapport d' activité wu secrétaire général ak rapport financier wu trésorier général bañolu lu leen dara suñu xaalis sax ñu ngi ko logé woon ci école bi mm-hmm. pendant dix ans xam nga ko bañool dara yaa ngi jël xaalisu eh, eh, app e bi di ko liggéeyee c' est des millions mais kooku wax dëgg yàlla bëgg na école bi jëm kanam mais tey jii lii ni teel rek ci association protestante d'entraide ngeen leen fa ngeen fay lépp te ñu jël suñu xaalis jox leen état jël xaalisam subvention jox leen l'argent di contribuable suñu xaalis encore léegi ñu ne foog ñu fayaat ñetti weer yoo xam ni boo ko boolee ak weeru inscription bi ak euh, nu mu tuddati euh, mois d'avance bi teg ci cotisation association des parents d'élèves mu nekk cent et quelques mille pour benn élève loolu na wax dëgg yàlla ci autorité yi wax dañu bëgg yëf yi dem kanam donc hmm. fi mu nekk daal vraiment c'est très clair defe naa moom léegi le problème est bien posé tey ni nga wax waxal nga parents d'élèves euh, yëpp